ay douane ñu ngi ci ay douane ñu ngi ci ay sapeurs-pompiers ñu ci gendarme ñu ci ay ndaw la ñu def concours ah admi, mi ñi pénitencier ñi yàlla yàlla yàlla yërëm ñi làkk nañu ñi ndongo dal na lañ seen service feebar nañu yàlla yàlla yëkkati ci leen bëri na ay branche donc volet social yi moom ci gën a intéressé parce que comme ñoom dañ koy def pour sukkandi ñi nga xamante ah ñoo ñoo néew doole donc ça m'intéresse beaucoup ma ñëw jàpp ci en ada man yàlla dafa dogal homme de tenue yëpp ay waliye lañ waaw ñu dafay waliye lañ kii Diouf Diouf Papi Sa ñun ñëpp ay waliye lañ sama ngi nuyu sama surtout amul yaakaar. yii waaw waaw sama xarit la ndeysaan ah maa koy nuyu bu baax moom tamit ah, muy def liggéey bu rafet ci Sénégal parce que gis naa chaque année ñu décoré ko ak ci këm service am. këm liggéeyam donc vraiment euh, may ma leen di ñaanal jàmm di leen wax ni que ça va s'arrêter là incha allah buñ yàlla may fi bu fan a def yeneen ah. fi nekk. Ah. ñu may oto sama kanam la. ñëw naa fi nekk chef de bord dina leen may oto. fi hmm. may wax ak yow nii jël na fi en charge pour faj ko wax ni waali kër quoi quoi qu'on dise c'est quelqu'un qui est très social man a plusieurs reprises témoigné naa ay acteurs yaa ngi koy def di a wax ne tamit le 29 décembre ñu ngi organisé benn gala pour soutenir boobu police ak handicapé yëpp incha allah loolu aussi tamit lan nga ci war a jàppale wax Sénégal dinañ ci jàpp bu baax bu soobee yàlla dinañ ci jàpp fu ñu fi yàlla parce que mam Abdou su ma jumul à ah, non ah, alhamina alhamina ah, damay wax ak sama benn grand frère bu Abdou Aziz Ndiaye mu ne alhamina da ko wax yàlla na ko yàlla yërëm yokk leeram tax ci da ko wax ne ko euh, lu baax soo koy def laaj na ko nga wane ko très ñu nekk sa ginnaaw mën ci roy ndax euh, bu ñu lay waneel say ayib bël mhm. yow jéemal wane say yu baax mhm. ndax soo ko defee ñi nga xamante ni ñoom euh, ñi la bëgg mhm. te buñ la waxalee dara ñu mer Nous xam au moins am na benn partie humaine ci yow mhm. c'est très très important benen bi ci moy euh il faut que sénégalais ñu nangu ñu xam tous les sénégalais sont géniaux. très bien y' a pas que Wally Seck qui est généreux tout le monde tout le monde tous les sénégalais sont généreux man musicien yi un gën généreux ñoo fi nekk waaw te man gëm naa ni. Euh, euh, ku ci ne ñu def sa wàll fi nga ko bëggee ak ni nga ko war a doxee te di ngeen ci gis dara ci kanam tous les Sénégalais sont mais oui oui bii boo paree dama koy naan amul benn